ab tukki nemmeeku la kii di Babacar Ibra Mar di sous-préfet bu Ndaam doon amal tey jii ci talaata ji dëppoo ak ñaar fukki fan ak benn ci weeru juin atum 2022 ci yenn ci gox yi nga xam ne day faral di taa su nawet bi dikkee boobule visite kii di sous-préfet bu Ndaam mi ngi ko àndoon ak mairie bu Touba waa Touba ca kanam waa ONAS waa sapeur ak mbooleem service yi nga xam ne mbënn mi soxal na leen visite de terrain bi ñoo ngi ko tàmbalee fii ci hôpital Ndaamaatu Ndaamaatu nga xamante ne bii Touba ci kanam mi ngi fay def liggéey bu am solo Euh, voirie ñëpp xam nañ ne waa Ndaamaatu at bu jot seen voirie boobu daanaka ay at a ni kenn jaaru fa donc ñoom tey ñu doon euh, jël seen responsabilité ñëw ne dañu koy defar ñu leen si sant bu baax a baax a baax lëkkaloo ci ak Ageroute mu amoon benn jafe-jafe bu ndaw rek boo xamante ni bi ñoom seen diggante wala ak CSE parce que dañoo constaté ak taw bu njëkk bi ne dafa am ndox moo xamante ni bi jéggeegul tali Promoville bi loolu nag biñ ci waxtaanee ak waa CSE tënk nañ ne ne ki nga xamante ni mooy liggéeyloo CSE muy Promoville dinañ jokkoo ak moom pour que ñu autoriser ñu ñu def loolu. li ñu gënal sax mooy mu jël ko en charge defar loolu ba ndox dootu fa taa parce que tali moom ñëpp xam na ne tali ak ndox moom àndul donc loolu foofu la ñu tënk. incha allah rabbi dans les heures qui suivent dinañ ci def ay jéego. ñu ngi rafetlu jéego yi nga xam ne mais mairie taxawal na ko dafa fas yéene accompagner liggéey yooyu te li ci wàllam itam mu fas yéene dara bañ cee manqué euh, nekki noonu itam Touba Ca Kanam gis ngeen ko mi ngi ci ndaamaatu dafa liggéey liggéey bu am solo jëm ci wàllu assainissement ak route ak yeneen i barab moom itam mbir mi daal ak lëkkaloo la goo xam ne nii ñi ko seq ñëpp faw ñu di ko coordonné àndandoo ko ngir mu mën a jëm kanam bu ko defee fu jàpp fii kii jàpp fii ki jàpp fii mu mu gën a baax su fekkee lu ñu war a ànd jàpp ci li itam ñu àndandoo jàppandoo ko ngir mbir mi gën a yomb loolu yëpp nag occasion bi ñu ngi koy sant préfet ndax ci initiative am la la jële xalaatu ginnaaw bu ñu taxawee ñun ñëpp itam mu taxawal benn quartier général boo xam ne dafay regrouper mboolem acteurs yi ñuy agirandoo ci bépp mbir mu mën a doon. ginnaaw bi ñuy jugee ndaamatu sous préfet ak ñi mu àndal wutali nan Touba yoonu daaru foofu foofulee sous préfet di ñu xamal matuwaay yi nga xam ne jël nañ ko fa. yéen ñëpp xam ngeen yoonu daaru nam meloon daaw daaw jafe-jafe yi ñu am yëpp ni yoonu daaru meloon la ndax ngiraaneen mi ñuy wax sax yoonu daaru moo ko joxoon ndox waaye nag ren alhamdulilah ci waajtaayu nawet bi état du Sénégal jël na ay mesures yu am solo PDA bi nga xamante mooy plan directeur d'assainissement bu Touba am na si lu ñu ciy commencé mettre en œuvre ci loolu nag ci la ñun wax na waa entreprise Enan Chine fi ak nawet bi di jeex nañu fa defal benn dispositif boo xamante ni bii bu tawee ndox bañ faa taa te ñun ñëpp constaté nañu ne am na ay conduite yi ñu teg pour raccorder ko ci benn regard bu nekk fii installé nañ fa pomp boo xamante ni sapeur pompier moo ko fay def 1000 mètres cubes la Senelec wàccee na courant bi donc am nañ yaakaar ne foofu jafe-jafe yi fa amoon daaw dina wàññeeku surtout que daaw. ñun ñëpp xam nañ ne pompe bu 450 lañ fa tegoon di jaar ci conduite 200 ren pompe bu 1000 lañ fa def di jaar ci conduite 400 donc am nañ yaakaar ne foofu dina am njeexital bu am solo. Senelec aussi lépp luy point yi nga xamante ne bii war na fa wàccee courant wàccee na ko ba pare. sapeur pompier yi seen machine yi ñëw na donc installé wu ñu ngi installé au fur et à mesure. tournée bi ñu ngi ko jeexalee ci bassin de rétention bi nekkee Kër Niang ñu fekk leen ñu nekk ci ay liggéey yu am solo. sous-préfet dellusiwaat bu baax ci liggéey yi nga xam ne ñi ngi koy amal foofu ci bassin de rétention bi le fii nga xamante ne bi mooy bassin wu Kër Ñang te yéen ñëpp ngeen seetlu ne daaw amoon na fi ay jafe-jafe ba mu am ñaari yoon débordement ren aussi entreprise Enan Chine ci liggéey bi nga xamante ne bi état bi dekk nag ko gis ngeen ne capacité bi ñu ngi koy yokk yokk bi mooy fa miir bi yemoon dañu ko yokkaat un mètre mu wër bassin bi yëpp donc loolu bu yeggee dina maanaam yokk capacité bassin bi ñu ñëw fi tamit fekk fi la nga xamante ne bi moom lañ doon liggéey daaw si nawet bi muy les deux pompes de 2000 nga xamante ni dafa war a yokk capacité Kër Ñang bi gis ngeen installé nañ leen ñu ngi nii suñu ginnaaw te liggéey bi sax tàmbali na parce que pompé nañ ci ba mu dem ci bassin wu Pofdy bi donc yooyu yëpp tax na ba en tout cas ñu ngi am yaakaar ne dispositif yooyu ñu jël amaana yàlla dinañ si suturaal ba lañ dundoon daaw duñ ko dund. xanaa di fàttali rek ne tukki nemmeeku bi day jëmmal liggéeyu quartier général bii nga xam ne sous-préfet bu ndaam taxawaloon na ko ngir waajal nawetub ren bii fii ci dëkk bu sell bii moom sous-préfet bii di ñaan rek sama boroom defal ñu nawetub jàmm. ñëpp nañu xam ne dispositif bu doomu aadama mënut a teg dafa am loo xam ne moom daf koy échape mooy ñaata litre lay sunu nu suñu tudd di wàcc loolu nag moom nit mënu koo waajal ndax bu fekkoon ne réew yi mën nañ koo waajal. fu mel ne Brésil nga xam ne moo ñu ëpp doole amaana xëj na du am inondation ba am ay soixante-dix morts wala lu ko ëpp donc nañu rafet njor la ñu war a def ñu def ko di ñaan yàlla mu wàccee ndox moo xamante ne bii suñu capacité ak suñu dispositif den ko mën a jël en charge ba mën koo yóbbu